محمد منور القلوب وكاشف القرب لدى الكروب صلى الله عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى مبكي داري خم خم نيلي نيلي جلين زيارة جنين مبالي مكون نكتي دار جنين زيارة نيب دي جيغلو سرين دار جان تريك برام خم خمي نيلي سوار اجين تي كاتن برام بتبارك وتعالى comme niñ koy faral di def ak yeen di and di nafarante ak yeen téere bi di isaru sarik ila usuri madhhab imam malik euh, xam naa duñ ko tudde jangale waye nafar lañ ko tudde ndax tuti nañ ci jangale waye nak lu nu jàngoon ci daara ga di ko nafar and ko mbokki daara yi ak serigne daara yi rek ñu ngi ñu di ndokkeel ñëpp tey kon ñu ñu ngi ginnaaw nag ba nga xamee ni ñu ngi doon lim usuuli mazhab yi imam Malik comme ni ñu ko waxee woon mazhab bi comme ni ñu ko waxee dafa am lu ñu ay ay asl yoo xam ni borom mazhab bi ci la sukkandiku ngir di ci ballu ay atte borom xam ne lim nañ ko lim yu wuute waaye kii di Ibnu Abi Kufa moom da koo limoon ci fukk ak juróom-benn man nga commencé woon ci alquran ak sunna ak hadis ak ijma di lim limoon na al istihbab ak limoon na yu bare bari ba ñi ngi ñi ngi mujje woon ci aslu bu mujj bi mu muy tuddee muraatul xilaaf eh, kon tey bind bi ci war a topp rek ginnaaw bi mu limee aslu yëpp da ci teg nag li nga xam ni jege na ak usul waaye duñ duñ wax ni mooy usul waaye mën nañu wax ni moo ëmb usul sax nag mooy li ñuy wax al qawaidul xamsa al kulliya al kubra qawaidul xamsa al di juróomi qaida yu mag yi nga xam ne dañuy wax ni moom moo Euh, banqaas ci fiq yépp ci la tënku moom xawaayid yooyu buñ ko limee moom mooy tëja téere bi insha allahu rabbi ndax borom xam ne ñu wax xawaayid yi alxawaayidul xamsa al kubra euh, moom mooy mooy xaayida yi nga xam ne moo fi nekk moo jiitu bu ko defee nag bu ñëwee xaayida yooyu bu ñëwee ba noppi nga xam ni ci la nit moom moo ci la ci la usul di meññee alqawaidul fiqhiya meññee ci wala masail fiqhiya meññee ci masail fiqhiya yooyu nag ci la alqawaid al fiqhiya génne kon lii mooy li jiitu mooy al alqawaid al xamsa al kulliya al kubra juróom la yoo xam ne borom xam-xam ne lim nañ ko mën naa ne wute amu ci sax dégg ni ak ci niñ koy déggee xëy na moo am wute waaye juróomi xaida yi moom wute wuñ kon euh, قاعدة بتنجككم نقول وخي وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنعصر من يم يجرم قاعدة خمس بنقص كي كلا تقوى وحي بتنجك نقول اليقين حكمه أب أتيمنك لا يرفع وديفك يكري بشك بل لأمك حكم اليقين أتيم يقين يربع لديه في طفل قاعدة بنجك بمولا اليقين لا يزول بشك مرحمن يقين mu ne al yaqiinu lu wóor laa yazulu du deñe bi sakk ci sikki sàkk mooy xaada bu njëkk bi al yaqiinu laa yazulu bi sakk al yaqiinu laa yurfaq bi sakk ban maanaam loolu mooy lan mooy bis boo mbir mi boo ci xasee am lu la wóor ginnaaw ba sikki sàkk tàbbi la sikki kon da nga sikki sàkk googee da koy sànni fële doo ko considéré da ngay jàpp ni yaqiin da nga amoon gannaaw yàqin amoon na rek loola ngay jàpp lan mooy ak sikki sàkk rek ibnul qayim rahmatullah alayhi nee na yi bu ñu waxee laf ci shakk li ñu ci jublu ak taradudu bayna al wujudil mashi wa adamihi nee na ñu ci jublu nga nekk ngay sikki sàkk ci ci mbir am na ak amul te yaa ngi nekk ci digg bi yaa ngi nekk ci digg bi amul benn boo ci lëngal lëngaloo am gi lëngaloo ñàkk am gi loolu mooy ay shakk mu ne nag sikki sàkk nag maanaam tey boo doon sikki sàkk ci mbir nangam ji am na wala amul gannaaw la nga njëkkoon a jàpp rek mooy mbir ma amoon nga ci yàqin laata ngay dugg ci sikki sàkk kon yàqin googa ca ngay dellu ca ngay jàpp it waaw euh, qaayida bi nag qaayida mu'tawara la fil asbaab wal baraat ci lépp lañ koy ixtibaar ak ci lépp loo xam ni ahkaamul ilm dana ca génne rek ndax xam nga mbir yi lépp luñ mbir yëpp buñ sañoon lañ ci am mooy al ilm lu wóor mooy al ilmul yaqin mbir yëpp buñ sañoon lu wóor lañ cee am waaye ba nga xamee nag loolu musta'il la munta nekk wala ma ta'azzara seex sori suwar maanaam mbir yi li ci ëpp am ci yaqin daanaka mën la nekk kon moo tax nag boo boobaa dañoo jël daanaka zann li ñuy wax zann taxawal ko maqaamam yaqin ngir zann moom moo gën a jege yaqin ci chak ndax chak moom dafa siir yaqin lool kon kon moo tax nag ci masala yu bare bare bu wé sekk mom sekk mom dañ koy sanni kenn du ko jëfëndiko mbir mo xamni ci sikki sak nga xey nek dang koy tek fele ludul ni nak sikki sak gogu dafa am dalil xaas ci sharia bo xamni mom mo wax nañ ko ihtibar ndax amna ci sikki ndax amna ci xeyri sak yo xamni dañ koy ihtibar kan na di xamina sak comme li nga jangon ci lakhdar yu ñu ni la bu fekke da ngay sikki sak sa yere bi sobe laal nako laal ko nang ko bis wala bok ci masab malik bu da ngay sikki sak ci sa japp toj na wala tojul nenañ li gëna wor ma ngay dem japp li ay masala yo xamni dañ ko istisna ci mazhab Malik ak lu mel ne ci wàllu euh, bari na daal euh, ci mazhab Malik yoo xam ne ci wàllu matala julli tamit julli la ñuy ixtibaar ci mazhab imaam xam ni ko topp ak ak Abu Hanifa mooy avann waaye bu dee mazhab Malik nag mooy al yaqin kon al yaqinu bi shakk loolu mooy qaida ba nga xam mooy ci mooy njëkk daal mbir bu fekkee da nga caa a am lu la wóor kooku moom sikki saaka du ko dindi ba mu des ci yenn masala yi nga xam dañ ko jël sikki saaka lu mel ne ci wàllu njàpp bu dee ci mazhab Malik ak ci yeneeni mbir ci wàllu jàppoo bëri na ci yoo xam ne ci mazhab Malik dañ ko cee istisna waaye bu dul yooyu rek dañ naan as al yaqinu laa yazulu bi shakk kon loolu mooy qaayida bi nga xam ne mooy qaayida bi njëkk سرين بني وضرر يذال وتنشير مع مسقة يدور عيث ما وقع بنين قاعدة بيتي شوف موي قاعدة نار بيتي القواعد الخمسة الكلية الكبرى موي وجوب الضرر عما نزل به كون منام وضرر لور تبوهم يزالو ديسكو تيغي ولا ديسكو جندي وتيسيرو جابنا لتامي داي ام ma xam mashaqatin di ànd ak di ànd ak coono yedooru loolu lii ma wax ne day wëndeelu ay suma taqa fu mu fi fu mu fi tàbbee rek lii ab xaada lay jun boo xam dañ koy wax ad dararu yusaal maanaam ci sharia lor fépp foo xam ne dafaa am rek sharia bu ñëwee da koy dindi wujubu isalati darir amma nazala bihi qaida bi lan mooy cosaanam mooy hadis bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni la darara wala dirara ndax wa anna shariata mabniyatun ala jalbil masalih wa dalbil mafasid maanaam sariya ci liñ tënku yépp ci liñ ko tëgg mooy xëcc ay njariñ ak jañ ay lor kon xaayida bi xaayida bu am solo la maanaam lépp fépp foo xam ne lor am na fa rek sariya moom bu ñëwee day xool lor jooju ñu ngi koy ceggee xaayida bi kon moo tax xaayida bi sax ci lay dugg li ñuy wax irtikaa bu aqafu dararay bi maanaam ñaari lor bu fekkee dañoo teew dangay xool ba ca gën a woyof rek nga tegoo ko maanaam ñaari mbir yi fekkee dañoo teew te faaw lor am da ngay xol lor ba gëna a nga tegoo ko ci misal bu fekkee ñaar da nga xif te mënoo ñàkk ka ñaar yap nga fi nek li yap xaru medd la lii yàpp mbaamu medd la te faaw nga lekk ci benn moom ndax la ngaa lor mënoo ñàkk dañ naan la lekkal ci yap xaru medd yi da nga bayyi yap mbaamu médd yi ndax mo gëna neew lor ndax fee ñaari ñaari lor da caa dajé loruk nekk gi aram gi mu aram nek sobe ak lor gi nek medd médd nak genn lor dong nga ci am muy lor gi nek medd kon wa dararu yuzal qaida mi nag day li ci bànqaasu ci ay masal fiq bari na loolu liñ ci dugal yi bari na torop torop torop torop mo kon moy mu wa taysiru ma mashaqatin moy qaidam ñettel bi al qaida thalitha min qawaid al khamsa al kulliya al kubra moy fépp fo xamni rek al masaqqa dafa ñu ci sharia mum day fexe ci coono dafa am mo tax laa yukallifu lahu nafsan illa wusaha coono fépp fu mu am ci sariya rek sariya day xool nu mu tegee coono boobu ngir yombalal la ko moo tax alquran xaayida bii lan mooy dalilam ci alquran mooy wa ma jaala aleykum fi diini min araj suñu borom dañu seen diine jii de defaluma leen ci ak ak araj maanaam ak tartar ak métti métti nga xam ni dama leen ko diisalal ba métti maanaam lépp lu am rek wutal na leen moo tax nga gis ruxsa am xaayida bii mën nañu wax ni bokk ci ay bànqaasam al aqasu bil bokk na ci ay bànqaasam war ar ruxs li li nga xam ne maanaam tey ji bu doon tukki sharia ah, andil na la ruxs ni la comme da ngay tukki te tukki daa metti may na la nga bu dee da ngaa bu dee da nekkoon ci koor mën ngaa dog ba tukki ba jeex bu dee da ngaa da ngaa tukki tukki dox boo xam dafa sari may na la nga wàññi julli ya loolu kon mooy mooy xaayida bi nga xam moom laa tudd maanaam wa dararu yuzaal wa taysiru ma am mashaqa maanaam fépp foo xam ne coono dafa am rek charia day xool bu dikkee indi muy indi solution ba yomb yomb am waaye nag al mashaqa mashaqataani maanaam mashaqa buñ koy wax ñaari xaaj la ci ci ci lii ñuy wax ñun dafa am xaaj boo xam ne la tan fakku an al ibada anhu dafa am xaaj boo xam ne nag moom mënta ko ak amu yàlla moo tax tax fiif mënu ci am ndax bu fekkee ci misaal bu fekkee jàpp da ngaa war a julli faaw nga jàpp même bu dee dafa sedd faaw nga jàpp bu dee coono rek mooy jóg ci sedd bi jàpp ci ndox mu sedd bi loolu mooy coono bi coono boobu moom mun ta ànd ak mënut ta tàqale ko wa sawum fi laar maanaam bu fekkee koor gi daa dajee jomale tàng coono boobu dafa dafa taqoo jaamu yàlla la moom loolu coono boo xam ne mun a tàqale ko jaamu yàlla mënu cee ñàkk loolu coono bu ndaw la am beneen xaaj boo xam na moom mën naa tax ci beneen martaba la nekk bu fekkee ci martaba martabatu daruriya la aju nag kooku moom dañ la koy jégal ijma borom xam-xam yëpp ci dëppoo bu feebar mi nag day bañ ndox bu jàppoo rek cëram mën na cee laago mbaa mën na cee tëdd mbaa mën na cee loru loru gu métti goo xam ni mën na cee alko mbaa mën na cee ñàkk cëram mbaa mën na cee jële loo xam ne daal mën naa métti ci feebaram ko nag moom ki ci ak daruura la nekk kooko boobaa moom jàpp ga dañ ko koy teggal moo kon euh, bu fekkee nag moo tax am na ci saxaba yi koo xam ni fanaanoon na fanaa woon na janaba dem ci xare mu xëy war a julli daal di yeewoo jana ba yàlla dogal moom moo jiite woon saxaaba yi yom nekk loolu mu jiite leen julli ba jooju daal di ci julli yonent bi kee moom bi mu ko nekk leen salaa sallam yoon ci laaj ko lu tax nga nga def loolu mu daal di koy ne man du ma du ma rey sama bopp xamoon naa ne ndox mii su ma jàppoo dana mel ci man loolu salaa ko kon da koo ko ci lépp loo xam ne lor man na la ca fekk moo xam dañ boo ko bu bu ndox mii boo ci jàppoo sëb cër mën naa yàqu ngir da nga am feebar bu koy bañ da nga am feebaru sedd wala nga am leen loo xam ne moo koy bañ kooku yaa ngi ci ab daruriya kooku mënees na teggil naa kon loolu mooy benn martaba bi nga xam ne ñëpp dëppoo nañ ci teggil nañ ko am mu am beneen boo xam ne moom dañoo dëppoo ni ñoom ñëpp loolu kenn tegg moo fi mar fi martabari tadmimaat kooko moom dañuy wax ni eh, kooka moom kenn teggilu ko maanaam bu fekkee ne yow mii faaw nga def effort rek ngir mën a def jaamu yàlla gi effort rek la laaj kooku moom dañ naa la dañ naa la dem bu fekkee tey jii maanaam da war a jàpp julli waaye ndox ma dafa nekk benn diir boo xam ne dafa xaw a xëcc tuuti waaye nag mënees na koo dox ci naaju tàng yi effort la laaj kooku moom dañ naa la doxal nga dem wuti ca ndox ma nga daal di jàpp benn bi nga xam nag moo am xilaaf mooy bu dee da nga dafa nekk ci li ñuy wax al martabatul ajiya maanaam bu fekkee ci wàllu aajo rek la foofu moom fa ma àllu xilaaf bay neen ulama yi maanaam ci misaal nit ki dafa feebar waaye feebaram nag feebar bu woyof la loolu feebar bu diis mu mën a ñu ne ko léegi nag faaw rek wàccal ci lal bi nga dox nga dem wuti ndox tànk ndox fële bu dee nag feebar bu woyof la rek kattanam xaw na koo may mu mën a wàcc dem ndox waaye bu ko defee day sonn dong waaye nag du ci loru kooku dañ naan ko kooku foofu la wute am kon loolu mooy beneen qaayida bi qaayida bi ci topp mooy wa kullu ma al aadatu fihi tadxulu min al umuri fa ya fihi taamalu léegi nag mu ngi indi qaayida bi wax al aadatu muxkama maanaam aada dañ ci àtte woo aada sharia daf ko bàyyi xel bu baax a baax aaday ay aaday aw nit sharia daf ko bàyyi xel moo tax mu ne wa kullu ma lépp loo xam ne tadxulu day dugg fii ci moom al aadatu aada min al umuuri ci mbir yi fax yi moom taxamalu def di jëfee fii ci moom maanaam lépp loo xam ne sharia bu ñëwee dafay bu ñëwee dafay bàyyi xel aadaw nit ña mu fekk moo xam seen aada ci waxin la moo xam seen aada ci jëfin la daf koy bàyyi xel moo tax bari ana loo xam ne charia daf ko indi sax am waaye li koy taxsiis mooy aada bari na loo xam sharia da ko indi ijmaalan li koy tabyiin mooy mooy aada bari na loo xam sharia da ko indi itlaq li koy li koy li koy li koy tënkaat mooy aada kon sharia dafa fonk aada lool bàyyi ko xel moo tax al aadaatu muhkama aada nag dafa am aadatul awam al xawliya aw il fi'liya min ahkaami charia dafa am aada nag dafa am xeeti ñaar dafa am aada boo xam aada am la manam dëkk bo fépp la ci aduna bi dëkk bo dem rek aada bobu ak benen dëkk bi ñoo bokk mo xam aada la ci waxin mo xam aada la ci jëfin amna na aada yoo xam la khas la manam maanaam gox sàngam ñoko koy jagoo ci seen aada mo xam dañu aada ji aada wa Sénégal wala aada wa makkar wala aada wa Afrique la wala aada wa Europe la ci seen aada la loolu moy al aada bo xamni khas la am bo xamni nak waye bu ci nek rek danañ xol sharia dafa koy bàyyi xel dëkk bu nek nekk charia dafay bàyyi dafa leen bàyyi xel ci seen diine ci seen aada ci misal Euh, comme ni ma ko waxee léegi sariya dana fekk loo xam ne ah loo xam day ñëw ci am waaye aada moo koy tax aada moo koy aada moo koy taxsiis moo koy tënk kon ci misaal dafa am lu ñu al aadatu al qawliya comme ni ma ko waxee léegi al aadatu al qawliya aada ci wàllu waxin dëkk bu nekk am na loolu ci misaal fii Sénégal boo boo ni woon day boo ni woon mën na boo ni woon tey jii boo boo waxoon am na baat yoo xam ne boo ko waxoon ci wàllu ngiñ wala ci wàllu sëy wala ci wàllu fase boo nee nit may naa la sa baat may naa la sa baat ci Sénégal loolu fase la mu dog ci ñun suñ aada am na ci gox yi Sénégal sax boo jigéen jé sa soxna jéggal naa la fase lañ koy jàppee kon ci wàllu aada moo xam xawli jëla moo xam fi ali jëla comme ni ko misaal léegi ci Sénégal boo nee may naa la sa boo ko waxee jigéen sa soxna jàpp ne naa ko fase nga bi may sa baat wala jéggal naa la am na ci yoo xam ne fii Sénégal boo jigéen jégg sa soxna jéggal naa la dañ naan fase nga ko léegi nag bu fekkee baat yooyu ci sunu aadama may naa la sa baat fase lay tekki léegi boo wax boo wax même boo waxul jigéen fase nga ne ko may naa la sa baat ñu ni da nga koo fase nga ni nga ni jublu ma ci loolu dañ naan fase la ndax ci dañu aada la ñuy xool lu ci aada jublu ñu ne ah may naa la sa baat de ku ko wax ci aada mooy fase ñu ni kon fase la kon aada sharia da si atte woo moo tax dañuy wax ni bépp mufti boo xam ne sax xamoo aada dëkk ba nga nekk daganul nga ubbi leen boo xamul seen aada am na loo xam ne doo ko mën a tax si am loo xam bu ñu waxee doo ko wax loo ci loo misaal bu nit waatoon ni man de du ma waat naan du ma war daaba ci dëkk bi duma ci war daaba ñu gis ko mu war ab baax xam nga xam nga daaba bu dee ci baat bi rek li muy tekki baat bi li muy tekki rek mooy lépp luy dox ci kaw suuf rek daaba la nit ak lu am ñaar ak lu am ñeent tànk waaye nag ci aada yi suñu waxin dañ koo faral di jëfandikoo lu am ñaari tànk bu ñu waxee daaba ñi ci jublu borom ñeenti tànk yow ba nga waxee ni moo wax daa bëgg nga ba te baatu arab bi rek mi ngi tekki rek lépp luy dox ci kaw suuf maa min daa fil ardi illa ala llahi lépp ci dugg te yow nga jublu ci yow ci borom ñeent tànk lañ jublu boo nee du wax daa ba tourné war ab baa wala nga war loo xam ne ñaari tànk am dañ naan la yow doo ko faara ndax yow ñun suñu aada aada moo ko tax si te li jublu mooy borom ñeenti tànk loolu ci jublu donte nag baat bi buñ ko ci waxinu arab rek lépp ciy dugg kon loolu loolu bokk na ci li nga xam ni aara dina ko def maanaam baat boo ah, bokk na ci it alxalabatul istimaali law ba baat boo xam dañ koy faral comme ni ma ko misaal léegi dañ koy faral dañ ko dañ koy faral di jëfandikoo te te jubluwuñ ci maanaa asli mi comme ni ma ko waxee léegi ci daaba defe naa ne loolu leer na al aaratul fi'liya tamit am na aara yoo xam dañ koy faral faral di jëfandikoo ci wàllu jëf dëkk yëpp la am dëkk yëpp la am moo xam ci wàllu atte moo xam ci wàllu lu mu mën a doon rek ci misaal bu fekkee ci misaal bokk na ci aada yi nga xam ne ci wàllu jëf euh, maanaam dëkk euh, dëkk su nga ni Sénégal day boo amee sa soxna ci misaal euh, da nga ko ngeen seq kër gi seq néeg dafa am bagage yoo xam ne góor gi moo koy faral moom am bagage yoo xam ne jigéen ñoo koy faral moom suñu aada ñun léegi nag bu ñu demee ba coow am ñuy xëccoo kii ni man bagage yi maa ni maa moom kii ni maa moom la ñuy xool aada moo leen atte dañ naan ah bu dee Sénégal day bagage nangam moom ay ceen ak i caq ak nanga moom jigéen ko faral di moom buñ ko xëccoo ñu ne ah kon bagage jigéen lañ ko jox jigéen bu dee ko loolu nag mi ngi aju ci amuñu seede amuñu lenn yoo ne kenn ko moom waaye bu ñu amee ci leen lañ koy sukkandiku waaye amuñu bu dee dañoo xëccoo bagage borom kër ak soxnaam ak ak ak kilifa maanaam ñu xëccoo bagage léegi dañ aada moo leen atte fekk amuñu seede amuñu leneen luy wane ci diw bi moo ko moom mm. dañu xool bagage yi bu dee ci aada dëkk bii jigéen a koy faral bi moom muy ay daal jigéen ak ay ay caqaki ay ceen ak ay ay yu mel noonu ay jaaroog ay yooyu dañ naan ah lii kat bagage yi jigéen la jigéen a ko faral di moom ay bool ak ay cin ay yu mel noonu bu dee bagage yoo xam nag bagage yi góor la ñu ne ah lii ci aada dëkk bi góor koy faral di moom lool nag benn aada mën naa nuróolewu koog moroomam loolu moo tax aada dafa am solo euh, moo tax alxuraan dani ci moo euh, ci boppam daf ko bàyyi xel moo tax mën nga ni mën nga ni qaayida bi asloom mi ngi jóge ci alxuraan ndax day alxuraan xusil aw fa wa amur bi la orfi boo seetloo hadis bi nga xam ni sayyidatuna Hind bintu Utba radiyallahu anha bi mu waxee yoon sallallahu alayhi wasallam ni ko man de Abu Sufyaan mooy sama borom kër waaye moom nag dafa nay borom ma jox dara lu ma mën a dundee njaboot sama moo mën a moo mën a dunde maa sama njaboot alxuraan suñ yoon sallallahu alayhi wasallam dañu ko yoon sallallahu alayhi wasallam dafa wax zaydatuna indi ni ko xudi min maalihi ma yakfika wa waladika bil mahruf dani ko ah comme sa jëkkër dafa ne ni nga ko waxee ba du la jox dara man ngaa jël ci alalam loo xam ne dina la doy yaag sa njaboot bil mahruf maanaam ci lo ci loo xam ni nag mi ngi tënku ci aaday dëkk bi ak ni ñu faral la dunde maanaam ci mu ne ko yow danga xam li la doy fii nit ak doomam ak ñetti doom ak ñeent doom xamna na li leen faral doy ci dépense bis bu nek mu ni ko na nga yam ci lolu na nga jël ci sa alal ci yaag say dom ci alalam comme nangu jox maa yegg ta bil mahruf kon ada lu ama am solo lo xamni sharia daf koy baye xel kon lolu moy ñentelu qaida bi ñentelu qaida min qawaid al khamsa al kubra mu def ben kon wala bo mu def ñaar walil maqaasidi l umuuri tatba'u wa xiila bi ila yaqini tarjih lii mooy al umuuru bi maqaasidiha qaayida bi nag man mel na ni am yoo xam dañuy wax ni rek moo qaayida bu njëkk ba sorewul mu ni walil maqaasidi wal umuuru mbir ya tatba'u day topp lil maqaasidi ñeel jublu ñeel jubluwaaye al umuuru bi maqaasidiha dañoo wax ni mbir moo mën doon mu mën doon charia la muy xool rek mooy finalité ba mooy lañ ci jublu moo tax man ak yow mën ñëw bokk benn jëf def ko waaye duñ bokk charia nangul kële man kële bañ koo nangu lu tax jubluwaay yi man ak yow si jëf ji dañoo bokk ma wax sallallahu alayhi wasallam wax innama al ahmalu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa yow te sa technique képp koo xam da ngaa gàddaay ngir yàlla da nga am yoolu ko gàddaay ngir yàlla képp koo xam ni it da ngaa gàddaay ngir leneen da nga am yoolu leneen kon kon mbir mépp mbir mu mën a doon rek yéene ja sharia daf koy bàyyi xel al umuru bi maqasidiha moo tax man ak yow mën nañoo bokk ci misaal kii nga xam ne dafa am janaba mu mu dajee bisu ajuma ki am janaba mu dajee ajuma kooku xam nga dañu ko bu sangoo janaba jo mën na caa yéene waale ca ngaayu ajuma la mu dem julli ji léegi nag kooka bu dee bu dee sangoo janaba ja yéen wala ci ngaayal ajuma mën naa yóbbaale ci ajuma waaye bu fekkee dafa dem sangu dafa am janaba mu dem sangu sangul ajuma yéenewul janaba yéene sa ngaayal ajuma la rek mënut a yóbbaale sa ngaayal janaba la kon al umuru maqasidiha moo tax mbir yëpp seen finalité seen seen yéene seen mujj loolu la sariya yi xool moo tax kon mu ni waxee waxeef na zi bii tarjixo day dellu ila yaqini moo kon lii mi ngi jublu ni nee na xaayida bi nag day mel ne mi ngi topp mi ngi mi ngi sorox mi ngi mi ngi topp xayda bu njëkk ba rek innama al ahmaalu bi niyaati wa li kulli mri in ma nawa maanaam sariya daal mbir yi ci bëree bëri yéene yi lay xool bu fekkee yéene yéene la mbir mu rafet la bu fekkee yéene yéene ju ñaaw la it lu ñaaw ngay am kon man ak yow mën nañoo bokk bekk yenn jëf waaye duñ bokk ay mbir man a yow buñ bokkee dem aj màkk dem màkk bokk man ma yéene a dem aj ngir yàlla ak yonente bi wala iyaazu billah keneen yéene dem màkka daje daje ji fa ak corom mbaa mbaa dem difa difa sàcc kon xam nga ne ñaari yéene yooyu bokkul waaye nag xaayida bi du xaayida boo xam ne day làmb lépp nag ndax am na ci mbir yoo xam ne ci sharia aajewul yéene am na yoo xam nag moom boo yéenewul ci misaal koor boo xëyee rek wóor te yéene woo woor amoo koor bu dee woor farata boo yéenewul woor mënu caa ñàkk bu dee julli woor yéene mënu caa ñàkk ak yu baree baree bari waaye am na ci jaamu yàlla yoo xam ne nag moom soxla wuñ ca yéene lu mel na fay bor wala bàyyi lu aram wala yu mel wala yeneen yu mel noonu moo tax borom borom maraqi suxuud wax na ko walaysa fil waajibi min nawaali inda intifaai xasdil imtisaali فيما له نية لا تشترط وخير ما ذكرته فخلت ومثله ترك لما يعرم من غير ذا قصد من غير قصد ذا نعم معلم رسنا لك واخي دافتي أمتي يو جامع يالا يو خمني boo ca yéenewul jaam yàlla ga doo ci am dara am ci yoo xam ne nag ma maa lahu niyyatu laa tusaratu kenn du ci sartu yéene mu ne wa misluhu tarku li maa moo mel ne bàyyi lu aram kooka jërul yéene boo ko yéene boo ko boo ko defee baax na ak yeneen ak yeneen yu mel ak fay bor ak delloo alal joo sàccoon ak ak yu mel noonu kooka jërul yéene sa xeetu yàlla la kon xaayada bi dajalewul dugg lépp du ca dugg waaye nag lu bare bari ci masala yi daf cee dugg comme ni ma ko waxee léegi moo tax mu ni xaayida bi nag mi ngi mel ne innama al ahmaalu bi niyaati rek wa innama li kulli mri'in maa nawaa kon moo tax mu ni waxii la waxee na za lii ma wax nii tarji'u day dellu ilal yaqin rek mooy innama al ahmaalu bi niyaati waqiila waxeef na xaayida bi ba tey lil xurfi day dellu ci xaayida bu njëkkoon a wax al ci wàllu aada lay dellu tarji'u ila qaa'idatin taxkimu taxkimul urf dafay dellu ci qaayida bi ñu waxoon léegi ni aada ci boppam dañ ciy attewoo mooy li al umaru bi maxaasi de a ah, ñoom ñaar mën nañuy wax ni benn lañ maanaam ndax mbir moo xam ni mbir bu mën a doon ci wàllu ci wàllu wàllu doomu adama bi ci wàllu sharia daf ci bàyyi xel aada dëkk booba bu ko defee aada ji feeg aada ji wutee wala sharia loolu lu ci mën a leeral la waaye bu fekkee aada ji dafa wutee sharia aada jooju kenn du ko moo tax mu ni kon waxila lil urf mu wasil xawaidi nag يقعنا قم سرها بما جرميلم لا يقول فيها وارد من القواعد من القواعد الخمسة الكبرى نقولي أمتي بروح خم يبدو فوننج نيلا دمي كون مرة لا يقول ففيها لا اختلاف فيها بين العلماء كلهم في كونها أصولا تبني عليها فروع الشرعية بروح خم يبدو فوننج قاعدة إلى المجرم من خم الفروع ما المسائل الفقهية لا تبخ وإنما الخلاف بينهم في التفصيل فقط maanaam wuute gi rek ci niñ koy tafsir la ñoom ci la ci la wuute gi am moo tax boo demee ci nasrul bunud sir abdallah wuld aj ibrahim borom maraqi suud ba mu koy sara wax na ni waro rujuu baad al furuuhi al fiqi ila hadhihi al usul fihi taqrif bi ihtibar wa saqit kon juróomi qaacida yi ñu le mooy al qawaid al khams al kulliya al kubra non la demee mu ne qad tamma mat na rumtu la ma sàkk woon walillahi al amid maa ngi maa ngi sant yàlla min nii ci man am dun cant goo xam ne daa imun aju sax la goo xam lay saye bi du ba sa jeex sëriñ bi nee na kon lama ma sàkk woon a taalif ci wàllu usulu mazhab kon mat na moo tax mu ne maa ngi sant yàlla sant goo xam ne daa iman lay saye bi wa adyaba salaati ma asna salaamu ala muhammadin wa alihi kiram wa adyaba salaat gan ngaa teddi julli ma asna salaam a gan ngaa teddi sëlmal wala mucc ala muhammadin yàlla na nekk ci yàlla muhammad wa alihi ak njabootam al alu nabi buñ ko waxee ñu ngi ci jublu yo salaa sallam alu nabi comme niñ ko waxee buñ ko waxee ñu ngi ci jublu yonent saa sallam ak njabootam waa këram banu hashim yëpp ci lañ bokk am ñu ni waxi am na ñu ni banu mutalib ci lañ bokk am na ñu ci wuute ñu banu mutalib bokkuñ ci waaye imaamu shafii la mu lëngal mooy banu Mutalib ci lañ bokk kon mën ngaa wax ni rek aalu nabi mooy waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak banu Hashim ba ci banu Mutalib sax loolu mooy li gën a wér ndax imaamu shafii loolu la lëngal kon عليه والصلاة بما حسن السلام على محمد يعني وآله وآله صلى الله عليه وسلم الكرام رواية كون دفن عن التير بسيلة يم نيجي سنت يا الله بباخ باخ تتعمل يكو تجي خلقو صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما علمنا الله وإياكم علم التقى وحمل الصالحين